lan ngay tàggatoo euh, Fara Abdou. Mhm. Euh, nañu def euh, les assises du système carcéral. Mhm. Mhm. wax ji du tontu ci benn émission ak Guy yu Sagna. nañu def quelque chose bu am fulla bu am fayda nañu def lël lël ci ci ci kaso Sénégal acteurs yi toog nit yi wax nit yi xayma ñu évaluer ba pare ne lii la def. loolu moo am solo balaay boobu nag oui nañu def jury d'honneur man pare naa pour def jury d'honneur wala jury citoyen sur la sur ci situation kaso yi citoyen yëpp toog fu leen neex ñu organiser ko xaw ma place de l'Obélisque wala fenel ñu invité différents acteurs un débat contradictoire ci kanamu askan wi yëpp foofu d'ailleurs la ñu war a jëm ay coowal d'ailleurs bokk na sax ci li ñu proposé woon bi mu amee coowal ak ili ak Senelec mhm. dañu nañu def jury citoyen ñëpp taxaw poser question nit ci di tontu donc man dama leen di invité mun nañ def juri citoyen mun nañ def jury d'honneur surtout def les assises du système carcéral loolu benn pàcc la li ci des nag mooy di euh, di leen di gërëm di leen di sant di leen di wax ne tey la waalo gën ay mm-hmm. kenn duñu tiital kenn duñu xoxatal kenn du ñu ragalloo kenn du duñu delluloo ginnaaw jigéen yi nañu takku dëgër këng góor yi nañu ngemb ñun ñépp ñu ànd génn ci jatang bi génn ci tënk bi nga xam ne senegal ak Afrique ci la nekk fekk tinkiwuñu senegal ak Afrique fekk jóguñu ci jatang bi dinañ des ci ndóol dinañ des ci sous développement léegi nag man awma problème pour que suñu doom yi fu ñuy jàngee mu nekk abri provisoire mais mënuma nangu jamono ji nga xam ne mu ngi am abri provisoire président de la république cëral boppam huit milliards mënuma nangu jamono ji nga xam ne quartier sàngam wala dëkk sàngam mu ngi am jafe-jafe pour ron mbalit gars yi di séddoo suñu xaalis dans des institutions aussi inutiles que budgétivores Mm-hmm. institution naam bu fekkee initiative ndaw yi la nañ ko lu waaye lu muy tekki mooy la faillite de la politique la faillite du système de ramassage des ordures mm-hmm. la faillite de nos collectivités locales bàyyi leen xel ci benn affaire. mais fii amul koy yow suba teel taw du ñëw sa kër il faut qu'on se respecte aussi guy. man je voudrais dire aussi une chose. loolu c'est à Sen TV et à mm-hmm. l'équipe de Sen TV. de dire à ses chroniqueurs d'avoir de la courtoisie. saagawuma ko. Mhm. jamuma ko paaka. Mhm. na ma bàyyi ma wax Ibrahima c'est bon on s'adresse aux Sénégalais on doit leur donner c'est bon attends on s'adresse aux Sénégalais. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a da ngaa bëgg a xaw ma vues yi bëri. non man je ne suis lan moo tax systématiquement. non non te nga waroon ko ko wax. lan moo ko dagg. et man systématiquement on me allez-y donc lii c'est pas donc c'est pas mhm. attends lii du condition yu baax pour waxtaan bu dee lii la dinañ ko xoolaat non nañu waxante dëgg tamit mosuma ko dagg mënu ma moom tout le temps mu may dagg dëpp loolu mooy antidémocrate loolu mooy pensée unique loolu mooy antidémocratisme. <laughs> non ah, non mais Ibrahima Pouy nañu dégloon te après mu terminé. nañu dégloon te mu terminé aussi ah. mais au moins man gan la saaga ma ko nga waaw man au moins gan la s'il vous ñàkkuma teggin. Mhm. mais na ma may ma wax. surtout que saay bu mu waxee. Mhm. moom mun na wax. non waxaat ça c'est pas. terminé s'il vous ku ko fi defoon tamit noonu lay wax. c'est pas mhm. parce que moom la. terminé s'il vous plaît xamatuma fan laa nekkoon. mais di gërëm di gërëm di yëpp. dama ne euh, c'est la faillite d'un système ba tax na mënuñu sax ron mbalit. li ma bëggoon wax mooy. ñu ngi wax dialogue dialogue dialogue dialogue. est-ce que est-ce que yéen war nañ nangu ñun Sénégal mu am lu ëpp juróomi téeméeri commune mu waroon nekk ay bërëbu waxtaan mhm. ñun ñu rafle waxtaan ba président de la République di convoquer dialogue national ñu am assemblée nationale ñu rafle waxtaan ba tous les jours ñu naan dialogue ñu am HCCT au conseil di dialogue sociale commission nationale di dialogue des territoires conseil économique social et environnemental plus de cinq cent collectivités locales Sénégal rafle dialogue ba ñu ñuy naxee dialogue dialogue dialogue président de la république ni mu waxee waa APR bu kenn wax ci dossier Sonko ba gars yi ni muut mais la kon moom moo ko tey ça veut dire que am na ndigal ci gars yi lan moo tax du wax maire yi maanaam communes yi mu nekk ay espace de dialogue surtout que ñoom ñooy majoritaire donc y a problème de système mm-hmm. Fatou Abdou y a problème de système askanu Sénégal nag moo formé moo fay rewlekat bi nga xam ne moo rewle sama yaay askanu Sénégal boobu dañ ko war a jox lépp askanu Sénégal moo formé moo fay jàngalekat bi nga xam ne moo ma jàngal donc askanu Sénégal boobu dañ ko ameel bor bu rëy donc ñun nañu jog taxaw réew mi du chinois du français du FMI du banque mondiale du France du Turquie moo ñu koy defaral sénégalais yi ñoo ñu koy defaral mm-hmm. ñun ñoo koy defaral suñu bopp donc ay waleen ñu bëri mhm. ngir daan suñu noon suñu noon du pël bi suñu noon du séeréer bi suñu noon du joolaa bi suñu noon du jaaxank bi suñu noon mooy système bi nga xam ne nooteel la rongu ñu baadoole di sim cere buur système boobu pare sax pour taal daay daayu waasoo daayu diine daayu tarixa suñu biir ngir rek gën a des gën a ngoy gën ñu seeñu gën a sàcc suñu alal gën ñu bàyyi ci ndóol te loolu dafa war a jóge te dina fi jóge alors jaajëfal nañu la bu baax a baax euh, euh, ma lay jaajëfal euh, ci ah. nangu bi nga nangu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy émission bi di wax ne ku am courtoisie nga et que saa bu ñu la soxlaa ci fi nga xamante ne moom mooy mhm. maa ngi lay wax léegi de matérialisation bi de amendes forfaitaires dañu bëgg matériel bi ñu leen digoon nga xam ne dañuy taxaw léegi boo taxawee léegi fay léegi moom lañ bëgg a gars yi indi leen ko parce que depuis 2019 ñu ngi fi te ñoom dañuy subir tous les risques pollution beeg taxaw si mbedd meeg seen condition dafa metti te mënatuñu donc nañ leen jël seen matériel bu ñu leen waxoon nga xam ne boo ñëwee yow ngay def contravention doo fa def deux minutes dem ñibbi mhm. te parce que liggéey bi aussi trésor moomu ko pourquoi xaalis boo jëlal yóbbu ko trésor te xaalis bi xaalis gendarmerie xaalisu police la. Mhm, loolu aussi nañu si dimbal dafa leen ci débat. jaajëfal jaajëfal nañu la Omar jaajëfal nañu la jaajëfal Pape Matar jaajëfal également Cheikh Oumar Ibrahima Pouy euh, jaajëfal Guy koy wax sànq euh, ci disponibilité bi ci saa bu ñu la soxlaa parce que presque toutes les émissions yi nga xam ne am na fii ci groupe des médias da ngay ñëw euh, suñu la woowee nga ñëw courtoisie bi nga xam ne ku ci xemteef bi du woon def loo xamante ne daf lay déranger et émission bi c'est pas la première fois ñu jël appel téléphonique malentendu bu amee mooy avertir ñu la et que arrive que ñu dem ci émission ba mu yàgg nit ki jàpp ne tudd nañu ko mu bëgg indi son droit de réponse et ñu nangul la li nga wax yow ñu am yaakaar ne di ñu nangul ne ñun loolu kese lañ ci jublu woon pour que peut-être que ni ko Pape waxee mu animé euh, ku nekk dégg li nga xam ne ci nangu bi nga xamante ne c'est pas la première fois euh, Tissa bu ñu la soxlaa rek nga nangu ñëw wuyu suñu ci li nga xamante ne moom moo ñu la moom la ñu lay laaj mais également euh, sa engagement bi nga xamante ne am nga ko ak li nga xamante ne moom ngay endurer à chaque fois te peut-être sénégalais yi ñoom ñoo tax donc jaajëfal nañu la jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon seetaan euh, ci sànq ba tey bi ñu ko dooree ak léegi donc lii la ñu leen indiloon ci Ndoumbelane ñu ngi leen di jox nag di daje ci yeen jotaay jaa ngeen